neex mu fal la ngay fale asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ci ndigalul cheikh mouhamadul muntaxa mbàkke xalifa général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigalul sëriñ abo baraka xalifa njabootuk cheikh mohamad fadal mbàkke comité d'organisation bu grand magal bu kazu rajab ànd kook mbooleem sëti sëriñ fàllu mbàkke ñoo am mbégte di leen yëgal ak a woo ak a fàttali mboolem activité culturelle yi ñuy amal di ko waajalee màggalu kazu rajab édition 2023 bokk na ci conférence rajabiya bi ñu amal àllarba dëppook le 8 février 2023 ci kër Serigne Ndiogou Mbacké Serigne Fallou Bousso Assane di amal waxtaan wi conférence rajabiya ñu koy amalaat samedi depuis le 11 février 2023 ci dakaar Patte d'Oie Oustaz Khadim Ndiaye ak imam Cheikh Awa Balla Gueye ñooy amal conférence bi daa ñu amal exposition bu mag ci buntu kër Serigne fàllu Mbacké gi ñu war ko ubbi lundi depuis le 13 février 2023 toftal ci conférence bu mag boo xam ni thème bi lañ ci fas yéene waxtaane muy warteefu sàmm ndonol xam-xamu murit gi gàllankoor yi ak yi ñu ci ànd Modou Khayri Niang ak Serigne Souhaïbou Mbacké rue 10 bu 20 heures jotee ci biir exposition bi daañu fa développer ay thèmes yu am solo bokk na ci dunduk Serigne Fallou ci wàllu xam-xam ay relation sociale am liggéey bi ci jumaay Touba gi ak demuk Màkka Serigne Fallou Mbacké xamle leen ak lenn ci njaboot gi ren ji ñu tànn ci soxna Mbène ak soxna sooda waaye xamal leen it dëkk yi nga xam ne Cheikh Mouhamad Fadel Mbacké sanc na ko ñu tànn ci Ndindi Bogo Touba Marina ak Madina Mbooba ak it leeral liggéeyu jumaay Padoua ji nga xam ne moo nekkee ci Dakar ci biir exposition bi dañu fa gaaral téere bu jëm ci dunduk Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké conférence des petits-fils muy conférence bi sëti Serigne Fallou yi di amal ñoo ngi ko jàpp le 15 février 2023 ci buntu kër Serigne Fallou gi jàkkaarloog jumaa ju mag ji thème bi ñu ci fas yéene waxtaanee muy Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké le savant divin ñu ci ànd ak imam Issa Gueye bi 21h lay door conférence bi ren ji ñoo ngi ko darajaalee soxna Maymunatu Mbacké Kubra bu ñu màggalee ba ci ëllëg sa dëppoo gaaw le 18 février cérémonie officielle bu mag ci buntu kër Serigne Fallou Mbacké gi ci teewaayu kilifay diine yi kilifay cosaan ak kilifay aada yi ànd kook mbooleem taalibe yi comité d'organisation bu màggalu Kazu Rajab ñooy woo ci mbooleem activité culturelle yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi góor jigéen mag ak ndaw rawatina mbooleem njabootuk Serigne Touba yi ak mbooleem njabootu cheikh yi àndoon ak Serigne di saku képp ku ci teew yàlla faj say aajo ci barkeb Cheikh Mouhamad Fadal Mbacké wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Fallu ku faaliwul Seex Fallu bu leen ko faa